أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحيم الرحمن الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara ci weer wu màgg wi di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan buur yàlla subhanahu wa taala yal nan yàlla boole jéggal ñu ngi ànd ak yéen ba tey ci téere yàlla bi subhanahu wa taala di fàttalante tey aaya 215 ci suratul baqara mu nekk benn aaya boo xam ne maanaa aaya bi li mu ëmb ak li muy tekki ak li tax aaya bi wàcc dafa am sahaaba bu tudd amr ibn jamuh moom amr borom alal la woon bu mag a mag benn bis dafa laaj yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam ne ko maaza yunfiqu wa ala man yunfaq waaw ñun borom alal yi lan lañu war a joxe ci sunu alal ak kan lañ ko war a jox allahu akbar boo déggee laaj bi di nga xam ne saxaaba yi seen dund daawuñu ko làmbatu ñoom dañu bëggoon dund lu leer waaye dañu bëggoon dund lu set daawuñu def benn jëf lu dul dañuy laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu tontu ñu doog a def xoolal kii borom alal la lan la laaj kan lañ war a jox ak lan lañu war a joxe aka neexoon borom alal yi ci àddina bi di mel ni kii yor sa alal xam ne alal ji moomoo ko yàlla moo la ko dénk te war nga cee delloo yàlla njukkal parce que yow kese kese doo doo mbindeef ci kaw suuf doo doomu aadama kese yow kese yàlla bàyyi sa morom yu bari daal lay may kon yow pour nga delloo yàlla njukkal sunu borom subhanahu wa taala mooy nga laaj alal ji la yàlla may lan nga ci war a joxe loolu question la ak kan nga ko war a jox gis nga ndekki am na borom alal yoo xam ne sax dëgg la ñu ngi joxe waaye kan la ñuy jox point d'interrogation moo tax waa ji question bi mu laaj yonent bi sama alal lan laa ci war a joxe loolu dafa am solo mais kan laa ko war a jox ñun xoolal tey bëri na ci ñun kuy joxe koy jox est-ce que ki nga jox yàlla moo leen a jox ko. te sunu borom subhanahu wa taala diineem ji bu bëggul ñuy làmbatu dafa bëgg lépp leer lépp looy def rek nga def ko ala bayyina ala ilmin moo tax nga gis laxdari téere bu ndaw boobu xaayida boobu sax bu ñu ko jàngoon kon réew mi ñëpp mucc da ngay dégg borom téere ba ne la wala yaxillu lahu an yafala filan xata yaalam hukmallahi fihi amoo droit yow amoo droit ngay def benn àtte ci lislaam te xamoo lu ci yàlla wax ngay def benn santaane te xamoo lu ci yàlla wax amoo ci droit nga ni ko bu ma jàngul nag mu ne wa yasal al ulama laaj boroom xam-xam yi yàlla ne fas alu ahla zikri alhamdulilah taala gis nga moo tax ñoom dañ doon dund aaya bi xoolal amr dafa jàkkaarloogu yonentu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ne ko maza yunfaq wala man yunfaq fa nazalatil aaya aaya bi daal di wàcc jawaaban li suaalihi lu tax aaya bi wàcc pour tontu laaju amr aaya bi daal di leeral ne annama yunfaqu ne li ñuy ku ñuy jox ci alal liñ ci war a génne wa saairul xayraat ak lépp lu baax lu doom aadama am war koo génne di ci joxe wa anna al axaqu bil infaqi alayhim hum lépp loo am ci alal lépp loo am ci alal di ko joxe di ci joxe ñi ko yeyoo mooy ñii di ñëw ki ci njëkk mooy alwaalidaani ndey ak baay ndey ak baay ñoo njëkk ci am amu nit soo amee bay joxe xamal ne ñi ci njëkk mooy sa ndey ak sa baay ku ramu ko ndeysaan moo tax yàlla waxul keneen de aaya bi moo ñëwaat rek wa qadaa rabbuka an laa taabudu illa iya mu ne wa bi waalidayni ihsaanan Sénégal da ngay gis ku mujjal ndeyam ak baayam ku leen mujjee daf leen ca fële am na ñoo xam ne lépp looy def ñooñu ngay njëkk a wax ba ñooñu d'accord sax yenn saa yi nga doog a ne ah papa waaw léegi nag dama ñëwoon bu sa papa bu la ne bul dem sa naan dama damay dem parce que tàggoon naa pare wax naa ko sama sama diw neen naa dem te l'islam ginnaaw yàlla loolu benn borom xam bu bu tudd Yunus mu ne alquran ko temedere simore e sappo e nayi min donki heen yiide yo ceerno ma ɓurana yumma e bamma alquran téeméeri saar la ak fukki saar ak ñeent mu ne gisuñu ci fen na la sa papa ak sa yaay gënal sa sa sa sëriñ na la gënal sa papa ak sa yaay gisuñu ko ci alquran moo tax boo amee bala ngay jox kenn alquran kim la njëkk a wax na nga ko jox mooy sa ndey ak sa baay léegi nag question bi mooy lu tax ndey ak baay lu tax ndey ak baay ba yàlla subhanahu wa taala ne bala ngay jox kenn joxal ñoom ñaar ba pare lu tax yaakaar naa loolu ñun kenn war ñu war ñu ko laaj ndey ak baay kenn warul ko laaj sa papa ak sa yaay ñu lay laaj ñooy ñan ci yow loolu yaakaar naa ne ñun war nañ ko dépassé fan lañ jaar ak yow bu nga xëy toll nii nga toll léeg-léeg saa yi nga dégg ku ñàkk xel naan man diw moo tax ma tekki déedéet sa ndey ak sa baay ñoo tax nga tekki ginnaaw yàlla moo tax yàlla mu ne la man bu ma paasee man yàlla bu ma wëyee ndey ak baay amul keneen Abdullah ibnu Abbas dafa gis benn waay boo xam ne dafa boot yaayam di wër kaaba gi wër ak moom kaaba gi ba pare daal di koy cëppeel ni ko kii de sama yaay la xanaa léegi nag fay naa ko àq yépp mu ne ko tàmbalee goo mbokk yi ndey ak baay kenn mun leen a fay même boo amoon alal di leen jox 24 heures sur 24 nga dëkkal leen ci benn gratte-ciel ci benn immeuble bu mag bu jege asamaan ñuy lekk yàpp di naan soow di tëdd fu nooy mënoo leen fay mënoo leen fay moo tax yàlla ne la boo amee booy joxe ki ci jiitu sa ndey ak sa baay mbokk yi ndey ak baay dañ leen war a fonk dañ leen war a teg ci kaw dañ leen war a bëgg ndax yàlla moo ko dénkaane wa wasayna al insaana bi walidayhi yàlla nee na dénk naa doom aadama ñaari way juram ndeyam ak baayam waxuma la liñ la jur rek mais yàlla moo la dénk yàlla moo jël sa ndey ak sa baay enveloppé ba mu rafet mu teg ci benn cab bu fleur comme booy joxe cadeau ba mu rafet mu ne la am nga ne ko lii lan la mu ne la sa ndey ak sa baay téyel ma ko téyel ma leen toujours ma téye ko mu ne waaw wa in jaahadaaka imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin mu ne ñaawat même buñ demee ba màgget li ma lay dénk nii ñaar ñi ma lay dénk même buñ demee ba màgget imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma buñ demee ba màgget ñoom ñaar wala kenn màgget attention de fala taqul lahuma uffin bul wax uff uff baatu uff la yàlla utilisé parce que moo gën a tuuti ñi naan seen papa yi góo nag naan seen yaay xam nag naan lii loxo yi nag ak di arsale di yuuxu yenn saa yi nga gis benn waay bu yuuxu papam yenn saa yi nga gis ku yuuxu yaayam au contraire sax yenn saa yi nga gis ku yenu papam ba ci kaw dóor ci suuf yenn saa yi sax nga dégg ku rey papam ku rey papam waaw dóor papam yépp wala peel wala barre de fer wala kuur papa yi jaar fay jaar dee wala yaayam te yàlla ne ndénkaane la bu ma la joxoon même bu ñu màggatee kenn màgget wala ñoom ñaar bul wax of wala taqul lahuma wa qul lahuma qawlan kariman mu ne na nga leen wax wax ju nooy wax ju nooy wax ju nooy waaw ndànk wax ju sedd wax ju lewet wax ju nooy wax ju ànd ak yërmande ànd ak dal wa qul lahuma yàlla mooy wax de qawlan kariman mu ne waxfid lahuma janaha zilli min arrahma même amoo droit sax yëkkati mbagg yi wàccel mbagg yi booy wax ak sa papa mu taxaw yow da nga war a toog bu toogee da nga war a sukk sooy wax ak moom sa gémmiñ sa nopp noppam ngeen warul dégg yéen ñaar est-ce que ñun ñu ngi dund loolu yenn saa yi nga dégg sax waxuma sax ñi jaahil yi mais ci ahlu sunna yi yenn saa yi nga dégg ko la waay waay pas mushrik bii dañu ay mushrik lañ suñu waa kër ay mushrik lañ yenn saa nga dégg ko ne suñu waa kër ay mushrik lañ inna lillahi wa inna ilayhi nga gis ko muy julli vingt quatre heures sur vingt quatre nga ni mushrik la ñàkk dégg dina baaxul am na benn waay bu doon wax papa mushrik benn boroom xam-xam di ko tere mu naan ko wallahi kii musirik la benn bis ñëw ndeysaan góor gi daal di génn àdduna góor gi bi mu génnee àdduna fekk temps yooyu dañoo jubóowul woon rek mais àdduna neex na nag léegi bañ juboo mais baat ya jot na ko wax ba pare ñëpp dégg ko ñi ko doon tere tere nañ ko mu lànk mais nag àdduna neexaat na juboo nañ léegi nag paa bi daal di génn àdduna mu téléphoné xaritam yi ne leen léegi sama papa dafa génn àdduna ma bëgg ngeen ñëw daal di koy daal ma ci jàppale am kenn koo xam daf koo téléphone kooku ne ko déet man du ma mën a ñëw de mu ne lu tax mu ne ndax kooku mushrik la te jullit du jullee mushrik ah mu ne ah yaa ko waxoon de du ma mën a ñëw man wax dëgg yàlla du ma mën a ñëw ndax yow yaa ne woon sa papa mushrik la kon nit dafay delloo ci xelam même bu doon musirik sax suñ borom subhanahu wa taala wax na ci alquran wa in jahad wa in ahadun min almushrikina stajaaraka fa ajirhu hatta yasmaa kalaam allah même bu fekkee kenn ci musirik yi ñoo la gane si ñoo la seet si yàlla mu ne na nga ko waar na nga waxtaan ak moom ba mu dégg waxu yàlla waxuma laak nag ki la jur même bu ñu doon ay yéeféer yàlla nee na topp àndal ak ñoom ci àdduna ànd bu rafet wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma waaye wa saahibhuma fi dunya maarufa bul bokkaale de lim la wax na nga bokkaale bul ko def de waaye nag waaye nag àndal ak moom ci àdduna ci njekk na rafet bañ bi sax na rafet bañ bi na rafet mais réellement dañu texte yi dafa des dund gi dafa des lii rek mooy wane dafa des yaay ak bàyyi ndénkaane lañ mbokk yi nañ leen fonk nit day fonk ndeyam ak bàyyam munoo am ci kaw suuf ñu raw ñaar ñooñu balaa kenn ñaar ñooñu la woon tey bu nit ñi mënee ñëw naan la yaay sunu lii yaay kii mooy sama lii mais dafa am ñu taxaw ba nga mën a nekk loolu bi mu mettee kisoo woon kenn kenn ci ñun fii bu mu nekkee liir di nàmp kan moo doon ñëw di raxas bi borom bi di ko nàmpal kan dafa am yaay jàmbur bu bàyyi fële doomam ñëw di la defar ah ban yaay moo la doon boot ban yaay nga doon nàmp ana ban baay moo doon génne alalam ngay dund ah ndeysaan benn waaye dégg naa amus na am alal daf ma fàttali daf ma fàttali barki démb dama woor ba 11 heures ma tëdd sa sama benn doom bu am lan ay un an deux ans ñëw di yéeg sama kaw bu yéegee sama kaw bu ma ko wàccee mu jooy pour moom naa dëpp rek muy cëpp cëpp di yéeg su ma wëlbatee ko tëddee beneen côté bi du mën a yéeg mu jooy su ma dëppoo mu cëpp cëpp ba sonn di ree mu fàttali ma la waaj a defoon am alal ju bëri ñëw ci papaam ne ko bon père père xam nga xoolal léegi gars yi au lieu ñu ne alxuraan lan la waxoon yaa abati da nga war a wax bàyyi booy ay bàyyi booy yaa abati mais waxuma sax nga ni papa la gars yi dañu naan père mais père wala paa dare bi maa dare wala baat yooyu terme yooyu la ñuy utiliser moo ne père bon am dama tukki woon ñëwaat naa li ma wuti woon yëpp am naa ko léegi dama bëgg rek ngeen wax lu ngeen ma mës a defal rek ma fay leen papa ci ne ko ah dégguma li nga wax de mu ne lu ngeen ma mës a defal rek wax leen ma fay leen wala loolu est-ce que loolu xalaat la ne ko demal nga gis sa yaay ba pare nga ñëw mu ñëw ne yaay ji bon sama papa laa jóge tukki bi jàmm am na am naa xaalis am naa nangam am naa nangam am naa nangam léegi nag dama leen bëgg a fay yaay ji ne ko ah mu ne waa dama leen bëgg a fay yaay ji ne ko waa léegi nag mu ne wax leen lépp lu ngeen musoon def rek ma fay leen yaay ji ne ko man damaa bëgg rek nga ubbi sa biir bi ma dugg ci biir ma ma am juróom-ñeenti weer nga génne ma loolu rek laa bëgg gis nga moom lu mu gisoon ak fi yaay ji gisee du benn papa ji ne ko ah yàlla man de bi nga nekkee xale balaa ma doon xëy bu ma ndekkee ba pare damay tëdd nga cëppi cëppi sama biir bi bu añ jotee ma tëdd nga cëppi cëppi boo lekkee ba pare nag bu reer jotee tamit ma cëppi cëppi ba mu am juróom-ñaari at xanaa mun nañ koo tàmbali tey mu ndékkee pare nga ndékki nga ñëw nga tëdd ma cëppi cëppi fan la waa ji mujj dem jëndi goro ñëw di tuub kon ndey ak baay loolu lu ñaari melas message yu ndaw la rek yoo xam ne kenn mun leen a fay boo yoroon ay conteneeru xaalis yu fees asamaan ak suuf munoo fay ak sa ndey ak sa baay moo tax yàlla mu ne bu ñuy joxe sahaaba bi mu laajee amr bi mu laajee yonent yonent bi ne ko ñi ñu war a njëkk a jox alal ji soo ko amee da nga cee war a joxe waaye kan nga war a njëkk a jox gis nga alxuraan di ko leeralal kooku mu ne ko alwalidayn ñaari way jur wal aqrabuun ak way jege ñaale yi gis ngeen ñi la jege sœurs yi frères yi rakk yi mag yi ñu jege tey dangay gis doomu aadama yi nekk sàmba àllaar nga gis koo xam ne benn mbokkam du lekk du añ du reer du ndékki amul dara au contraire sax dafa luwe nga gis moom muy di waaw ndax ñu naan parce que xam nga lu tax doo jox say mbokk parce que say mbokk doo leen jox ba pare ñu taxaw naan la jërëjëf yow yaay diw yaay diw welelelelele hururururu non sa rakk boo bokkal ndey waaye du la defal loolu sa sœur du la defal sa frère du la defal loolu sa nijaay sa ñooñu say mbokk lañ danga leen war a ci lañ bokk moo tax léegi nag nit ñi li ñu leen intéressé mooy ñooñu nga xam ne boo rombee ci mbedd bi ñu jël seen musóor alal naa la bu dee paa la sax mu simmi mbax na bi ñooñu la ñuy dem di jox yàlla waxul lool de yu njëkk a jox mooy ndey ak bàyyi ñan ñoo ci topp mu ne wal aqrabuun ak ñi jege ñu ci tegu mu ne wal yataama jirim yi ñi seen bàyyi dee bépp xale bu mësëragul ci lislaam loxoom jotul ginnaawam baayam faatu nga mu dëkk ak borom alal borom alal boobu buy joxe dafa war a fàttaliku xale boobule xam ngeen ne al yataama jirim li ci yàlla wax ci quran li ci yonent bi saa sallam jàngale yonent bi nee na ana wa kaafilul yatim bu daal di ishaara ñaari baaraam yi mu ne man ak ki yar jirim nii la ñuy dëkkee yowmal qiyaama ki yar jirim yonent saa sallam dafa bëggoon jirim yi benn bis ci julli korite xaw ma tabaski génn na mu gis ay xale di fo mu gis benn xale fële ci benn ruq xale bi toog ndeysaan isolé wu triste mu ñëw ba ci moom ne ko waaw loo teree foo yi ci xale yi lu tax sanguwoo ci bisu julli gi lu tax soluwoo lu tax feetuwoo comme xale yi ana sa pap mais faatu na comment portable bi an sa baab mun def faatu an sa yaay ko def faatu nente ne ko nañ dem kër ga mu ñëw mu jox ko Fatima ñu sang ko ba mu set fomp ko sol ko yére rafet jox ko mu lekk jox ko mu naan mu ne ko demal ci xale yi nga foo xale bi dem xale bi dund naa ak yonent bi saa salaam ay at bi yonent bi faatoo keroog la génn naa ne ñàkk naa bàyyi nag léegi laay doog a ñàkk bàyyi waaye bi yonent bi doo dund xale bi jooyatul woon bàyyi alquran def ñu tere ñu lekk alalu jirim jàngeen ci alquran yàlla mu ne am na ci doomu aadama yoo xam ne dañuy lekk ndono wa taakuluuna turaasa akalan lamma dañuy lekk ndono lekk goo xam ne jéggi na doyo ak foqale jàngeen ci alquran yàlla mu ne wala yaxudduuna ala taamil miskin am na ñoo xam ne du ñu jox miskin mu lekk miskin waaye yemul ci loolu mu ne ñi nga xam ne ñooy lekk alalu jirim inna allazina yakuluuna amwaala al yataama zulman innama yakuluuna fi butunihim noora ñi lekk alalu jirim ci tooñ ñooñu safara la ñuy lekk léeg-léeg nga gis koñ boo xam ne wala kër goo xam ne boroom kër gi daa génn àdduna ñu daal di jël alal jëpp saax-saaxee ko tasaare ko daf la neex jaay kër gi xale yi fan la ñuy mujj mooy ci mbedd mi waaw ak bëri ca dëkk bi nit ñoo xam ne lekkuñu nekkuñu lu dul lekk alalu jirim mbokk yi jirim kenn la ci ñu ñu war a jox kan moo ci tegu wal masaakin mooy miskin mooy ki nga xam ne li mu am doy ko miskin ak faqiir du benn faqiir moo gën a ñàkk miskin mooy koo xam ne bu ndékkee du añ bu añee du reer bu xëddee du ndog kooku miskin la li mu am moo ko doyul dañ ko war a jàppale pour mu mën a dund ak kan wa abnaa sabil ak ñi nga xam ne ay étranger lañ dañu jóge seen dëkk ñëw beneen dëkk nekk ay jullit tumaranke dañ leen war a jàppale kon ñii ñooy ñi ñu war a jox ci alal wa amaluhum taala wa alamahum yàlla xamal na leen annama yafaluhu l abdu min xayrin yaalamuhu llah gis nga ba yàlla waxee lii ba pare ni ñii lañ war a jox ndey ak baay ak way jege ñaale yi jirim miskin ak étranger bu tumuranke yàlla bi mu waxee lii ba pare dafa xamal jaam ñi ne leen lépp lu ngeen mën a def ci lu baax min xayrin la wax ci lu baax yaalamuhullah yàlla xam na ko moo tax arja aaya fi lquran fa man yaamal misqala zaratin xayran yara aaya bi ëpp yaakaar ci àdduna nga xam ne jullit bu ci tegee tànkam mën na mën na yaakaar ëllëg day dugg aljanna mooy mooy aaya boobu fa man yaamal misqaala zaratin xayran yara yàlla nee na loo def ci ci lu baax lu mu tuuti tuuti min xayrin loolu na nekk lu baax rek nu mu toll yàlla nee na di nga ko gis danañ la ko fay doo ko perte waaye aaya bi gën a tiitloo ba tey mooy aaya ba ca tegu axwaful aaya fa man yaamal misqaala zaratin charran yara képp ku def ci lu gën a tuuti pepp atom ci lu bon yàlla leen di ngeen ko gis kon sunu borom nee na lépp lu ngeen def ci lu baax xam naa ko alxayr wa yajzi bihi dina ko fay fa raxaba bi zalika fi lfiili lxayrat mutlaqan yàlla dafa tënk aaya bi foofu xemmeem loo jaam ñi pour ñu tiitaru pour góorgóorlu ci lu baax loolu moom mooy maana aaya bii ñu war a jël tey laaj la bu benn sahaaba bu tudd amr ibnu jamuh laajoon yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ne ko alal ji ma am lan laa ciy génnee ak su ma ko génnee fan laa ko war a jëmee kan laa ko war a jox mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na nafs bi mooy aaya bi 215 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم sunu borom subhanahu wa taala mu ne yasalunaka gaa ñaa ngi lay laaj yasalunaka ci alxuraan ñaata la démb amoon nañ benn laaj de démb amoon nañ benn laaj kan ma koy tontu kenn tey encore ñaawaat beneen laaj mooy yasalunaka ci alxuraan ñaata la suba ñu tontuwaat bu ma tey ñetti fan nag bu ñëwee kenn tontuwul kenn du tafsir bis boobu yasalunaka gaañaa ngi lay laaj yow muhammad alayhi salaatu wassalaam lan lañ lay laaj ñu ne maaza yunfiquun lan la ñuy dépassé lan la ñuy joxe lan la ñuy saraxe maaza yunfiquun allahu akbar ñii bëgguñu dajeeg yàlla yóbbaale ay bakkaar ndax xam nañ ne almaalu maalullah alal ji alalu yàlla la yàlla moo leen ko jox almaalu maalullah alal ji alalu yàlla la moo tax ñu am alal ñu laaj yonent yàlla bi waaw alal ji ñu am lan lañ ci war a joxe ndeke ku am alal dañ ci war a joxe ñi am alal duñ ci joxe yowmal qiyaama sunu borom subhanahu wa taala nee na inna alladina yaknizuuna alzahaba walfidda wala yunfiquunaha fi sabilillah fa bashirhum bi adabin alim ñii rënk seen alal rënk alal ji ak or bi bañ koo joxe ci yoonu yàlla yàlla mu ne yow muhammad xamal leen yàlla dina leen mbugal mbugal mu métti kañ mu ne bis bu ñu ko defee alal ji ñu def ko faire en passé faire yowmal qiyam ñu bàyyi ba nga ñëw ñu ne la alal ji nga amoon nga ne ah daawoo ci joxe ci yoonu yàlla ñu ne waaw mu ne moo ngi nii ñu def ko benn faire di la ci passé xam ngeen fan la ñuy passé yàlla mu ne fa tukwaa biha jibaahuhum seen xar kanam yi kanam yi la ñuy passé ba pare malaaka yi duñ yem ci loolu naan leen haza ma kanaztum lii ngeen dencoon mi ngi nii kon alal ji Sénégal bu fekkoon nañu am yëpp ñu ngi génne di joxe kon nit ñi duñ mel nit ñi duñ ñàkk xoolal léegi lu doy waar mooy jàkk yoo dugg nit ñi dañuy yalwaan ordonnance nangam nangam chaque jour juma mbedd yi da nga def ko caag rek nit xëcc sa mbub sëñ bi wallahi alazim kër ga amuñu la ñu ndagoo ñëpp léegi ay yalwaankat lañ illa man rahima rabbuk te ay nit ñu ngi am alal di pasar pasare alal ji ah da ngay romb alal joo xam ne ñu ngi koy fowee tabaxee alal ji ay monument ay yu kenn xamut yu amul benn bopp ay da ngay romb corniche bi gis ñuy tabax ay ay ay banc banc public ay banc yu nit ñi toog mooy bu ngeen doxee ba tas ngeen ñëw toog fii dee ngeen alal jooju jullit di ñoo ko moom wala ñu ko tabax loolu balaa ngay tabax nit ki fu mu toog na nga ko na nga ko jox mu lekk ba pare ba mu mën a dem toogi foofu seen monument bi ban njëriñ la am ñaata milliards la. 14 milliards ñaata miskin ñoo ci war a lekk am ci kër. ñaata ñaata waaye ndeysaan alal ji duñ ko def fi ko yàlla bëgg alal ji dañ koy jël di ko pasar pasare loolu moo tax nit ñëpp war a xeex pour l'islam toog gis nga fekk l'islam nekkul Sénégal dañuy sonn rek dégg naa am na benn mouvement bu judd bu tudd rëccu comme Y'en a marre te yàlla na di mouvement ba mu ngi tudd rëccu rëccu te yàlla na di te yàlla na di comme Y'en a marre ni mu juddoo woon ah am na beneen bu bees bu tu- bu judd bu tudd rëccu lu ñuy rëccu waaw yal na leen yàlla jubal ixwaan yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne gaañaa ngi lay laaj maza yunfiquun lan lañ war a joxe qul tontul yow muhammad moo tax gis ngeen alquran ay yu mel nii day wane ne alquran du waxu yonent yàlla muhammad ci ñaari mbir bu njëkk mooy yasalunaka ñi ngi lay laaj ak qul suñ la laajee waxal bu fekkoon ne moom la du jar mu naan xul su gaa ñi laajee rek day tontu waaye gis nga amul droit tontu lu dul yàlla indi réponse yàlla mi indi réponse moo naan ko waxal xul waxal fii lu amrin loolu day wane ne Muhammad waxul alxuraan alxuraan bi bàyyoo kowul ci moom beneen bi mooy même bu fekkoon ne sax nit ñi dañoo wax ne Muhammad moo wax alxuraan kon Muhammad jar naa fa fekkoon ne waxam la jar naa fa ndax xoolal wax ji septième siècle ba léegi mu in mu défier nit ñi ni leen indi leen aaya kenn indiwul mu ne indi leen suura kenn indiwul mu ne bu ngeen boolee nit yee ginni yi pour ñu indi lu mel nii kenn du ko indi kon kay jar naa fan kon bu fekkoon ne waxam la sax walla ah waaw waaye nag yàlla nam ma sax dogal alxuraan du wax muhammad waaye waxam la moom yàlla subhanahu wa taala waxu yàlla la moo tax muy lu ñu war a fonk gis ngeen nii ngeen def téere yi nii teg leen ko ci teg ko ci sijaada ji bu doon Arabie Saoudite yuuxu nañ leen bu yàgg comme nii nii bu doon màkk yuuxu nañ leen bu yàgg soo ko bañee dindi nga gis ku daw ñëw jël kaamil bi teg ko ci xolam ñoom nee nañ kaamil warul tegu ci suuf ci kaw rek parce que waxu yàlla la warul tegu ci suuf dama koy nettali benn waaye mu ne ma def nañ ma ko billaahi wallaahi taala waaw ñoom du ñu nangu kaamil tegu ci suuf def nañ la ko ah alhamdulillah keneen nee na def nañ ko mu ngi nii toog man de def nañ ma ko comme ñun xam nga sénégalais rek te pourtant man ci sijaada laa ko teg de dama yor sama sijaada dugg ci kaaba gi lal teg ne allahu akbar naar bi yuuxu ma naan ma nii kaamil bi yëkkati ko maa ngi julli ma yéex mu ñëw jël taxaw ba ma pare mu ne ma nii fi ñu koy teg fii bul ko teg ci suuf lii kenn du ko teg ci suuf te pourtant ci kaw sijaada ci kaw ah mu ne léegi gis nga de moom nee na marocain yi ñëwoon ci jàkka ji semaine bi dañ ko gis mu yor kaamil teg ko ci sijaada bi ñu ñëw yëkkati ko parce que ñoom ñoo xam lii lan la ñun xamuñu ko ñun xamuñu ko li waxu yàlla la subhanahu wa taala xool leen président de la république bu mayee nit kado paa yooyu di liggéey bu ñu liggéeyee ba retraite président ñëw takkal leen benn grade jox leen benn feuille nuñ koy def ah am nga ci dañ koy jël yóbbu ca menuisier ba defar ko ba mu rafet wékk ko ci kaw duñ ko teg ci suuf de ci kaw parce que président moo leen ko jox bu ñu amee benn photo bu ñu ànd ak président dañ ko ciy boole teg ko ci kaw parce que président moo leen ko jox lii nag yàlla moo ñu ko jox yàlla buuru président bi kon alxuraan ci kaw la war a nekk mbokk yi kenn waru ko teg ci suuf ci kaw rek parce que borom kaw moo ko moo ko moom ki moom kaw kon dafa war a kawe ah jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne wa yaj'ala kalimati allazina kafaru sufla wa kalimatullah hiya al ulya dafa war a kawe kalimatullah kàddu yàlla mu ne dafa war a kawe warul nekk ci suuf allahu akbar dañu amoon benn ngénte borom ngénte li dem indi ji ay baaf ne day day teg alxuraan ak waxtaan séeram yi ak jabar ji ne ko fii kenn du fi waxtaan musique la ñuy def paa yi ñëw di yedduwaa ji naan ko gis nga nit day ànd ak ay mbokkam bàyyil ñii nga àndal déglu sa jabar li mu wax waa ji ne léegi da ngeen a bëgg a fay kàddu yàlla léegi ñu dindi alxuraan bi teg musique kàddu yàlla du fay waa ji di yuuxu ci ngénte yi naan kàddu yàlla du fay war na dëgg de kàddu yàlla du fay warul fay mbokk yi allahu akbar sunu boroom subhanahu wa taala nee na qul yow muhammad tontul gaa yi wax leen maa anfaqtum lépp lu ngeen mën a joxe lépp lu ngeen mën a dépasser min xayrin ci lu baax na ngeen yëg ne ku ngeen ci war a jiitu mooy falil walidayni seen ñaari way jur sa papa ak sa yaay soo amee balaa kenn lekk balaa kenn naan balaa kenn dëkk balaa kenn solu sa ndey ak sa baay ñàkk ful la weesuwul tabax bàmmeelu jàmbur baayu jàmbur tabaxoo sa bàmmeelu baay ñàkk ful la weesuwul loolu bàyyi sa bàmmeelu baay di tabax bàmmeelu baayu jàmbur alxuraan nee na soo amee ku ci war a njëkk a bànneexu mooy sa ndey ak sa baay keneen bokkul sa ndey ak sa baay balaa kenn sa ndey ak sa baay falil walidayni min xayr yàlla loolu la wax ci lu baax min xayrin lu baax min maalin ci alal is almaalu yutlaq alayhi lafzul xayri alal boroom xam-xam yi dañ ko boyal tuddee ko lu baax parce que alal dafa baax su la yàlla mayee lu baax loolu nag gis nga ay ay jur alal lañ koy tuddee ay xar alal lañ koy tuddee ay nag alal lañ koy tuddee ay gëléem alal lañ koy tuddee ay kër alal lañ koy tuddee ay oto alal lañ koy tuddee lépp alal la lépp loo am ci lu toll noonu lu baax nag ndey ak bàyyi oto yi balaa ngay may kenn ndey ak bàyyi xar yi nag yi béy yi kër yi ndey ak bàyyi ndey ak bàyyi mais xoolal sénégalais yi sénégalais bu amee kër li muy def day toxu day ñoo ne papa père bon père am naa léegi këran ma bëggoon ñu dem nga ñaanal ma quoi ma mën a toxu nga dem toxu bàyyi sa papa ak sa yaay ca kër ga nga dem dëkki cité jahannama cité boo xam ne amul jàkk bopp sa bopp ku nekk day tëj buntu këram foofu mooy cité jahannama bopp sa bopp bàyyi sa papa ak sa yaay fële yóbbaale woo leen di lu tax tax yóbbaale woo leen xeeñuñu fa ah xëy ñu ci kër ga wala amuñu fa place wala dañoo war ta dem pourtant ñoom bi ñu la juree ba pare bu ñu la bàyyi woon foofu toxu ne la bébé ñu ngi toxu parce que dañoo am fële Nord Foire kër gu bees ndax dina baax ñoom ndeysaan bi ñu doon toxu ci kanamu oto bi lañ la def yóbbaale yenn saa yi sax ñu defar la néeg yenn saa yi sax ñu defar la salle de bain ci néeg bi ndeysaan defal la lal defal la armoire nga ñëw ñu ne la Modou ah nga ñu ne la sa néeg a ngi nii sa chambre a ngi nii sa télévision a ngi nii sa lépp a ngi nii ah gis nga reste tranquille nag reste cool ah nga naan waay waay papa merci beaucoup vraiment vraiment papa ah yow papa mënu ma la fay léegi nag nga màgg am xaalis daal di taw bàyyi paa bi wala gisu leen loolu yéen aka bëri ci quartier bi aka bëri ci dëkk yi benn hmm? ah sa benn xarit allahu akbar doo waaw buggul doom ji dara laal ko ndeysaan nit mënul fay ndeyam ak baayam wallahi dëgg la histoire yonent yàlla nuux keroog ba yàlla di labal di labal monde nuux ndaw si dafa yéeg ci montagne bi ndax ndox mi ndox mi topp ko ndaw si yéeg ndox mi topp ko ndaw si yéeg ndox mi topp ko ndaw si dem ba amatul fu mu dem mu taxaw ci montagne bi ndox mi ñëw ndox mi yéeg ba ci oom yi mu tekki mu tekki doom ji ndeysaan ndox mi yéeg ba ci dënn bi mu yëkkati doom ji nii moom bugg na dee mais buggul doom bi dee tey boo bu sa yaay yéen woon paan di daanu day fexe ba du daanoo yow côté bi nga nekk allahu akbar nit mënul fay ndeyam ak bàyyam da ngay gis boo demee yenn saa yi ma ni xale yu jigéen yi bu ngeen bëggee xam seen yaay da ngeen dem salle d'accouchement gis nga nit ñi bu ñu doon dem salle d'accouchement di taxaw ci porte yi kon bu ñu fa jógee dootuñu wax seen yaay dara boo doon dem salle d'accouchement nga am fa cinq minutes nga dégg jigéen ñi ci biir di salleeru ñu leen di dóor parce que ñu ngi matu ñu ngi am doom nga gis ku yuuxu benn yuuxu boo xam ne da nga yaakaar ne malakal mooti moo ñëw di jël ruwam soo liggéey boo génnee bu la sa yaay ne demal tuural ma mbalit mi booy dem da ngay naaw doo dox da ngay naaw te da ngay kontaan ci lim la wax mbokk yi ndey ak baay dañoo fort moo tax yàlla teg leen place bi mu leen teg parce que yàlla xam ne ñaar ñii ñooy ñan ci kii moo tax mu ne la wa qada rabbuka an la taabudu illa iya wa bil walidayni ihsana moo tax mu ne wa wasayna al insana bi walidayhi xamalatu ummuhu wahnan ala wahnin ci ay coono la la sa yaay ëmb ay coono da ngay gis ndaw si bi mu ëmbee ba ba muy am doom ci feebar la nekk tuñ bi xotteeku muy feebar guddeeg bëccëg parce que daf la ëmb xoola coono boobu nga juddu li muy feebar feebar yépp mi ngi lay encadré ci nàmp ci sang ci fomp ci dàmp ah di couche di di di di tette ngay raamatu di dugg lu nekk mu topp ci ba école jot mu yóbbu fourniture yi yére yi nangam nangam ba nga tekki amoo looy def lu dul bon pa ba damay toxu quoi parce que sama femme bi mënul dëkk ak yéen allahu akbar dafa am benn waay bu feebar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ne ko waxal laa ilaha illallah waa ji sukuraat la nekk waa ji mënut a wax laa ilaha illallah yonent bi ne dem leen ngeen wal ma yaayam bilaal mu ne ko ah mu ne dama nga wal ma yaayu waa ji ñu dem wooyi waa yaayu waa ji mu ñëw yonent bi ne yaay ji xam nga kii mu ne xam naa ko kay salal la mu ne sama doom la da ngeen am problème xanaa waaw ah mu ngi dee de mu ne na dee bu dee dee dem safara de mu ne na dem safara sa kii kii kay na ko yàlla yóbbu fu gën a tàng sax sama yoon nekku ci baal ko mu ne baaluma ko lan ngeen jote daf ma jëndee jabaram jabaram la jëloon teg sama kaw yoon bi ne bilaal mu ne ah mu ne àndal ak gars yi ngeen foral ma ay matt ma lakk waa ji comme yàlla da koo nar a lakk ma lakk ko ci safara adduna bi balaa muy lakk ci safara àllaaxira gars yi demut ay matt dajale ko defar ko ba mu rab baax yoon bi ne jël leen waa ji teg ci ñu bëgg a jël rek ndax si ne yoon loo bëgg a def nii dama koy lakk mu ne nga lakk lakk sama doom man baal naa ko waaw baal jàmbur léegi baa gis nga ndey loo loo ko def ci lu métti métti métti ndeysaan bëggul dara daal la ak lu métti métti nag kooku yaay rek moo mën loolu mu ne baal naa ko yonent bi ne waa ji waxal laa ilaha illa allah mu ne laa ilaha illa allah daal di faatu bu ko yaay ji baalul woon du tudd baat yooyu kon mbokk yi sunu yaay yi du sunu moroom du sunu moroom de sunu papa yi du sunu moroom waaw leen saa ngi ku tuddee papam Ablaye Ndiaye booy ana Ablaye Ndiaye mu ne mu ngi ci biir xale yu jigéen ñi moom seen papa yi ay xaj lañ leen tudde ay xaj ah wala d'accordu leen lenn saa yi nga gis xale bu góor bu dee xale bu jigéen booy seen kër am na xaj am na xaj kay ngandum xaj kan mooy xaj bi paa bi la paa bi mooy xaj bi da ngeen def ne xaj yi wax woowu la ñu wax déedéet est-ce que seen kër am na xaj mu ne am na xaj kay kan mooy xaj bi paa bi mooy xaj bi ko wax sa papa xaj nag est-ce que dina la respecté ah boo meloon ni nga war a mel kenn du daje yow naan la ndax seen kër am na xaj la moo tax baat boobu ñu wax la ko c'est parce que ki la ki la gis dafa xam ne yow kuti nga moo tax xaj moo la jur moo tax mu ne la seen kër am na xaj wallahi wallahi wax nga dëgg saxi wax nga dëgg ndax yonent bi dafa joxe woon ndigal Madina nañ rey xaj yépp wax ji dafa ñaaw ba kër gu am xaj malaaka du fa dugg wax na dëgg wallahi al azim ba pare ñu wax ko sa pap garaaw na kon ixwaan yi li yëpp nag li ko waral rek du leen dul wàcc gi ñu wàcc lislaam wallahi soo jëlee sa doom dafa am benn góor gu feebar góor gi feebar bi kenn dox gisul fu mu nekk ci yaram bi yóbbu nañ ko hôpitaux yi ci Sénégal yëpp principal fu nekk def analyse gis ñu feebar bi benn jour ak benn xaritam ne ko waa yow mais réellement yow lan moo la dal mu ne ko dama am naqaru xol mu ne lan mooy sa problème mu ne dama am naqaru xol mais lan mooy sa naqar mu ne ko ñetti doom yu góor yu ma jur diw ak diw ak diw mu ne waaw mu ne diw jàngi na Europe ñëwaat diw mooy directeur banque sàngam diw mooy nàngam mu ne waaye ñoom ñëpp kenn dëkkul sama kër ñoom ñëpp bi ñu tekkee ku nekk da ngaa dem beru ji man dong sundum sël sama kër góor gi ne ko yaa tooñ sa bopp ndax da nga leen iñaane woon yàlla ku iñaane yàlla sa njaboot bu ñu màggee daal lay bàyyi mu ne ko loolu mooy lan mu ne ko jàngaloo leen woon diine doo gis mukk ñu jàngal diine mu am alal bàyyi ndeyam ak bàyyam billaahi wallaahi ma ne doo gis mukk ku jàng diine dem dëkk fale bàyyi ndeyam ak bàyyam ci kanam la leen di teg oto bi sax papa ji mooy nekk ci kanam bu ñuy dem bu liggéeyee ba wàcc bala muy dem fenn dugg néegu papa ji ak yaay ji xool nu ñu yendoo ba pare doog a dem néegam waaw waaye ñun dañoo iñaane suñu njaboot yàlla moo tax suñu njaboot yi bu ñu amee bàyyi ñu ñu ne cundum toog xamuñu yàlla ku xam yàlla du sàggane ndeyam ak baayam mbokk yi ku xam yàlla du sàggane ndeyam ak baayam parce que yàlla moo la ko dénk ixwaan yi yàlla nee na lépp lu ngeen joxe ci lu baax min xayrin min xayrin la yàlla wax fastabiqul xayraat njëkkante leen lu baax di lu baax dañ koy njëkkante lu baax lu tax aynama takunu yaati bikumullah borom bi subhanahu wa taala nee na ci lu baax loolu wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah lépp lu ngeen jiital ëllëg ngeen def ko ci lu baax di ngeen ko fekk ëllëg yàlla dencal leen ko min xayrin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alxayru kasir waaye qalilun failuhu lu baax dafa bari mais nit ñu néew ñoo koy def lu baax dafa bari de mais nit ñu néew ñooy def lu baax loolu wala saraxe tiyaaba yi ci nekk mais ñu néew ñooy saraxe sarax boobu ñooñu di saraxe sax bu waa ji ne mastata waa ji xel mu baax bi ne ko saraxeel day dugal loxo bi ci poos bi nga dégg iblis naan ko attention billet yi andalal ni côté bi la billet yi nekk demal ci pièce yi mu ne nii mu ne ko attention dafal ndànk wala ndànk xoolal dix franc bi wala vingt cinq fu mu nekk mu ne nan laa koy xoolee mu ne da ngay jël sawee nga xoos xoos xoosal di nga xam bu bu deful kiri dix franc la nga génne moo tax tailleur yi bu ñuy ñëw poos dañ koy def ci gauche ah poste du nekk droite de yéen ñi toog fii seen poste fu mu nekk seen dënn seet leen poche yi fu mu nekk ñu continuer poche yi fu mu nekk gauche gauche foofu la xol bi nekk boo dugalee mu ne la attention defal ndànk defal ndànk defal ndànk xoolal li ngay joxe ñoom juróomi dërëm ñu ngi foofu moytul billet yi nga moytu billet yi mu ne la moytul yu weex yi nga moytu mu ne ñëwal ci yu xonq yi nga ñëw ci yu xonq yi mu ne la demal ci yu ndaw yi yaakaar na amoon nga foofu dërëm sànq dërëm dërëm boo ko saraxee ni lu mu koy dee dërëm dërëm jaru sax tàndarama tàndarama sax léegi jaratul dërëm wala ñaar dërëm ñaar dërëm waa ji ne fii sabilillah nga jox ko ñaar dërëm ñaar dërëm yàlla yàlla yow ñaar dërëm la la jaral ñaar dërëm benn waaye dafa biir a kaaba gi rek ne fii sabilillah benn waaye jox ko enveloppe mu ne fii sabilillah waa ji jox ko enveloppe mu ne fii sabilillah waa ji jox ko enveloppe ñu ne ko yow waa ji ngay jox rek mu ne déggoo li muy wax bu dakkul lii du dakk ci yàlla la may laaj ma koy jox ci yàlla ñooñu dañoo xam yàlla joxuma ko de déggoo li muy wax allah allah yàlla ñun xamuñu yàlla moo tax ñun xamuñu yàlla da ngay gis ku ne ngir yàlla ñu jox la dërëm benn waaye ne ana waa kër diw làmba daj ñuqi joxe ci doole diw nga da ngeen jafaay am am ndeysaan te aaya bi ba mu ñu wax mooy ñiy laajante ci yàlla wattaqu llaha allazi tasaaluuna bihi yàlla ñu laaj la ngir yàlla amoo lay joxe lu dul ñu laaj la ngir sàmba ngir nangam nga joxe lu bëri benn waaye mun na taxaw fii wax ngir yàlla ba sonn kenn ko jox nga ñëw fekk keneen mu toog nga ne ko doomu diw diw diw diw diw mu simmeeku di joxe ba jël mbaxana bi sax daal di simmi yére yi nit ñi jàpp ko déedéet déedéet déedéet bul simmi yére yi nag doy na bul simmi yére yi te biñ la laajee yàlla joxewuloo mbokk yi wax moo bëri Sénégal rek waaye diine bëriwu fi de wax ji nag dafa bëri waaye yàlla dafa néew Sénégal dëgg-dëgg place bi yàlla waroon occupé ci nit ñi dafa manqué loolu nag bi mu manqué loolu ngeen di gis ni dund bi nit ñi di ko dund ci mbedd yeeg kër yeeg fu nekk parce que yàlla moo manqué ci dund yi ci dund ji yàlla dafa manqué sunu borom subhanahu wa taala nee na wa ma anfaqtum min xayrin lépp lu ngeen mën a def ci lu baax mu ne falil walidayni jiital leen ci seen ndey ak seen baay falil walidayni ndey ak baay yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na ridallah fii ridal walidayni kontaante yàlla mu ngi ci kontaante ñaari way jur waaye wa suxtillah fii suxtil walidayni yonent yàlla muhammad nee na yonent bi dafa toog nii ma toggee ak yéen mu sukkandiku mu njaganaayoo yoo loxo ndey jooram bi mu ne sahaaba yi ala unabbiukum bi akbaril kabair ndax duma leen wax bàkkaar yu gën a rëy qaalu bala ya rasulallah ñu ne ah kay yow yonent bi mu ne al ishraaku billah bi muy wax yépp mu ngi def nii de bokkaale yàlla al ishraaku billah bokkaale yàlla ñi doon sahaaba bi doon nettali hadis bi nee na yonent bi bu muy wax loolu wa kaana muttaki an dafa sukkandiku woon ne nii bi mu waxee al israaku billah mu daal di jóg toog mu ne wa uquuqul walidayni ak dënge sa ñaari way jur ndax daf leen bëgg a woon ne nu mu graawee dënge sa ñaari way jur dënge leen sa ñaari way jur nga dënge leen mënuñoo am lu baax ci yow waaw père waaw père pas dare maa dare ay yooyu terme yooyu non paa bi da ngay maar quoi non fii kenn mënu fi dund quoi nga dégg xale jigéen ñi non mère bi dafa fàtte quoi yenn saa yi nga gis xale bu góor bu naan dana ma dama naan tat wax paa bi raayit bàyyi leen maag moom tat laay def ngoon wax ko raayit yow bi nga ne cocc bu noo wax sa papa dëgg nga ne da nga naan tat wax ko raayit bi nga bi nga màndiwul munoo wax kenn luñ dégg nga bëgg a màndi wax dëgg mënul nekk moo tax olof yi naan nen nit nen la ndeyam ak bàyyi xeer lañ xeer nag lu mu tuuti tuuti tuuti bu ci nen dajee daa di toj rek sa ndey ak sa bàyyi boo leen déggalu rek di nga déggal ndey bàyyi keneen ak bàyyi keneen ku bàyyalul sa bàyyi bàyyali bàyyi jàmbur ku raxasul sa oto bàyyi raxasul oto bàyyi jàmbur ku xëyalul sa bàyyi xëyal bàyyi jàmbur doo fi nekk di tambaambalu ci mbedd yi moom kay boo ko deful fii rek def ko fee waaw loolu mooy sunanullah fil ard wa bil walidayni ñaari way jur allahu akbar am na benn waay boo xam ne ci ci ci liggéeyal yaayam la amee aljanna am waa joo xam ne dafa liggéeyal yaayam ba pare dem safara yontu yàlla Moussa dafa laaj yàlla ne ko yàlla ndax damay dugg àjjana yàlla ne ko waaw mu ne ko kan laay àndal mu ne ko taxawal sa buntu kër ku la njëkk a romb kooku la Moussa bi mu déggee wax ji ak bi muy taxaw am kuy romb benn xale bu góor mu ne kii la waaye nag dinaa xam kii lan la def ba dugg àjjana ànd ak man xale bu góor baa ngi wékku benn saak yor ay fet ay flèche dugg ci benn kër Moussa taxaw di xool dugg ci benn néeg daal di génne benn basang lal ko ci suufu garab daal di duggaat ci biir néeg bi génne fa benn màgget bu jigéen teg ko ci basang bi daal di koy wéer ci garab gi mu wéeru mu tekki mbuus mi commencé dagg ndeke yàpp la di jox soxna si muy lekk mu jox ko ay daggit yu baree bari ba mu jàpp ne suur na mu may ko ndox daal di jëlaat soxna si delloo lem basang bi delloo daal di jëlaat mbuus yi jëmaat àll ba bi mu rombee Moussa Moussa daal di téye ci mbagg yi ne ko mbokk mi na nga def mu ne maa ngi fi rek mu ne kii nga doon jox mu lekk sa lan la mu ne ko innaha ummi sama yaay la loo ko doon jox mu ne yàpp foo ko jëlee mu ne saa yu ma xëyee suba ma jullee ba pare damay rëbbi ma reye ay njomboor ma fees ko lakk ba mu ñor ma ñëw jox ko mu lekk ba suur ma delluwaat utiwaat mu ne saa yoo ko joxee mu lekk ba mu suur mu naan ba màndi lan la lay ñaanal mu ne day yëkkati ay loxoom ne allahuma ij'al ibni haza maa musa ibnu imrana fil janna yow yàlla maa ngi lay ñaan sama doom ji nga boole koog musa doomu imran ca aljanna musa ne ko absir fa ana musa wa anta rafiqi fil janna kontaanal man may Moussa xale bi mu ne mu ne ko yow yaay sama àndandoo biir aljanna kooku fan la amee loolu ci ñaanu way juram keneen ki da daan jox yaay ji mu lekk ba suur naan ba màndi ba pare daan ne ci xolam allahumma xuzha wa arixni biha yàlla kii daal yàlla na dee ba ma noppalu je suis fatigué oh non merde c'est emmerdant quoi joxe joxe ah ma sonn xol bi mooy wax loolu mu dee malaaka yi jagat jagatee ko bëgg ko yóbbu aljana yàlla mu ne fu ngeen jëm kii kii dugg aljana malaaka yi ne yàlla kii gisuñu ci fëyam lu bon gisuñu ko ci malaaka yi ñoo doon bind xam nga lu tax malaaka yi lu baax lañ ko bindal laa yaalamuna al xayb xamuñu kumpa egguñu ci xolu waa ji ñoom ci jëf yi lañ yemoon moo tax ñu bindal ko lu baax yàlla mu ne kii kii de musta am lu baax malaaka yi ne yàlla ñun mënuñu comprendre kii nga xam ne yaayam ah mu ne waa kaa leen moo leen kii bu joxoon yaay ji mu lekk ko pare lu muy wax yàlla na dee ba ma noppalu yéene bi baaxul moo tax yéene yi bu sellulee nit ki day sonn rek foog yéene yi sell baax mbokk yi yàlla nee na lépp lu ñu war a joxe ci lu baax falil waalidayni ne ci ñaari way jur jiitu wal aqrabin ak way jege ñaale yi kal ixwa mbokk yi rakk yi mag yi wal axawaat rakk yi jigéen yi mag yi jigéen yi wal awlaad doom yi wal amaam bàjjan yi tante yi wal amaat wa awlaadihum ak seeni doom wal axwaal tante yi wal xaalaat nijaay yi wa awlaadihim ak seeni doom ñii ñoom la la alxuraan wax balaa ngay jox kenn joxel ñii ba pare Sénégal nag da ngay gis ku romb ñii ñëpp waxuma la sax da ngay gis tabaski jot koo xam ne papaam amul xaru tabaski moom mu dem di maye xaru tabaski te papaam amul waaw wala mu jël xaram moom ci boppam dem maye jikko naa naan noo mën a diw na am diw na am man moom bu amee rek man bu ma amul sax garaawul ah garaawul ba nga egg ci yàlla mbir yi démb ñu ngi doon jàng aaya boo xam ne mbir yi dañoo war a xam ne du xel du xel de mbir yi du xel doo toog nii rek di natt lii moo rafet ci yow lii la sa xel rafet lu nga def loolu déedéet islaam aw tëralin la yàllaa ko tëral yàlla ni mu bëggee ngay doxale du yow ni nga bëgg yàlla yàlla wax aaya bu ñu jàngoon barkaati démb yaa ayuha alladina amanu udxulu fi silmi kaafatan wala tattabiu xutuwati shaytan yéen ñi gëm yàlla ñu ne amu ne dugg leen ci diine ji lépp amul ngarale way yàlla li la wax mais mais xam nga ah ah yàlla mais yàlla boo ko waxee mais amatu ci place mais baatu mais amul ci l'islam place ida qaala allah wa rasuluhu fa bil ayni wa raas asam wa taa bu yàlla ak yonent waxee keneen amatul ku ñu war a déggal ku dul yàlla ak yonent yàlla nag ñii la tànn nee na borom alal yi seen alal lañ ciy génne ñii lañ koy jox jege ñaale yi bu ñu paasee al aqrabin lim naa jege ñaale yi ñooy ñan rakk yu góor yi ak rakk yu jigéen yi mag yu góor yi ak mag yu jigéen yi ah mbokk gu góor gi gu jigéen gi ak seeni doom tànta yeeg bàjjan yeeg baay tax yeeg papa yu ndaw yeeg ñépp ci lañ bokk ak seeni doom ñii saa yoo amee ginnaaw sa ndey ak sa baay ñii ñoo ci tegu ñii ñoo ci tegu keneen balaa nga koy jox ñii ba pare yàlla teg ci ñeneen mu ne ñan wal yataama jirim yi jirim wax naa sànq jirim mooy ku papaam gaañu gis ngeen kooku li ci alxuraan wax kuy lekk alalam alxuraan ñetti aaya yi nekk wasiyatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne abdullahi ibnu mas'ud nee na ku bëgg a gis ndénkaana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu def tampon kaseem na jàng aaya yi suñ jàngee aaya yi dañ ci fi fekk wala taakulu amwaalal yataama bu leen lekk alalu jirim mooy aaya aaya ndénkaane yonent bi ban aaya la la ilaha illallah aaya bi am ndénkaane yonent bi nga xam ne mooy am kase abdullah ibnu abbas ibnu mas'ud mu ne li mooy ndénkaane yonent bi aaya bi lan la sourate an'am ci kaw ci kaw ci kaw la tàmbalee an naza sirati mustaqim foofu la jeexee qul taalaw atlu ma harrama alaykum rabbukum alla tushriku bu ngeen continuer aaya bi première wasiya bi deuxième wasiya ngeen jàng mu ne wala taakulu bu leen lekk alalu jirim alalu jirim kenn du ko lekk yàlla ne ñi lekk alalu jirim safara lañ lekk kon jirim ku ñuy teral la mooy ku baayam gaañu mu nekk xale dañ ko war a yonent bi nee na man ak ki yar jirim ñooy dëkkandoo aljanna comme sama baaraam bi ma ak ki yar jirim beneen bi mooy yow mii lekk alalu jirim xool ko ci sa bopp est-ce que bëggoon nga boo deewee ñu lekk sa alalu njaboot bàyyi ji dee ñu ñëw jaay kër gi te xale yi kër gi mënoon nañ ko fee bàyyi mais nga gis gars yi ñëw jaay kër gi parce que kenn ku nekk rek bëgg nga cee am dara ñu dem njaboot googu fu ñuy mujj ji ci mbedd mi loolu musiba la mbokk yi kan la ci yàlla teg ginnaaw jirim mooy miskin wal masakin ak miskin yi wax naa sànq miskin mooy koo xam ne bu ndekkee du añ bu añee du reer mooy lim am doy ko kooku mooy miskin miskin yi nag ëllëg ñoom ñooy dugg aljanna juróomi téeméeri at borom alal yi doog a ñëw yonent bi saa sallam nee na miskin yi ñooy njëkk a dugg aljanna juróomi téeméeri at mooy genn wàllu bis genn wàllu bis juróomi téeméeri at inna yawman inda rabbika ka alfu sanatin mimma taudun ñun suñu junni at mooy benn fan ci yàlla suñu junni at genn wàllu bis ci yàlla mooy ñun suñu juróomi téeméeri at kon fii ci àdduna ku fi am téeméeri at ci yàlla ñaata at nga fi am da ngay gis yenn saa yi am ku dee ñu koy tàgge ñu ne am na téeméeri at ñépp ne ha lée ci yàlla ay minute la fi am ay seconde moo tax alxuraan bi ñu wax ne dëgg-dëgg dund gi am na ñoo xam ne def nañ ci àdduna juróom-ñaar fukki at bi ñu deewee malaaka yi fekk leen biir bàmmeel yee leen ne leen yéen ñaata at ngeen am àdduna ñu ne in labis naa illaa yawman ki am téeméeri at ci àdduna boo ko fekkee bàmmeel ne ko ñaata at nga def àdduna danaan benn fan laa fa def dee benn fan ki am ay juróom-ñaar fukki at ak juróom fukki at suñ leen nee ñaata at ngeen def àdduna dañ naan lam yalbasu illaa asiyatan aw duhaaha fekk fi am na fi juróom-ñaar fukki at mooy sunu zaar yi yàlla yàlla ne la yow àdduna ñaata at nga fa def nga naan ko man man kay benn ngoon rek dama judd rek dee benn ngoon lam yalbasu illa asiya ñeneen ñi ne aw duhaaha fekk kooku def na fi juróom-ñaar fukki at ki fi am téeméeri at naan yàlla benn bis laa fa def damaa judd rek dee moo tax àdduna saxul yàlla daf ñuy wax loolu pour ñu xam ne adduna bi amul importance te wallahi boo demoon adduna boo demoon armeel yi nga xam ne adduna amul importance boo demee armeel yi nit dee nga dégg dee na nga xëy suba ndékki ba sa koll fees wala añ ba sa biir fees nga jubal armeel ya fa ñu koy suulee wala nga ñëw ca jàkka ja toog ñu ne ana néew bi ñu ne mu ngi ci morgue bi ñuy sang ñii sang buñ ñëwee yére yi mu fanaanoo woon la ñuy njëkk a dindi dañ ko koy simmil da ngay dégg ba la ñu koy simmil ñu ne ut leen benn serviette teg leen ko diggante jumbax beeg oom yi lu tax dañuy bañ sa awra yi feeñ ñu ne suturaal ko suturaal ko nañ ko suturaal waa ji ne kërës tëdd ñu xëcc tube ji génne yoor loxo yi simmi silib bi bu doon ko takk ay téere la ñu indi paaka wala ciseau dagg téere yi du dem de acca téere yi dina la sauvé nañ ko ko suulaaleel dañ koy dagg téere amul njëriñ amul benn njëriñ boo dee dañ koy dagg karaaj waxal bu leen ko dagg boo ko fàtte woon da nga naan du ma dem te ñëwul du ma dem te ñëwul na ñëw kii diw moo ma ko jox tey dem nga yaa ngi nii dem te du dem ñu dagg ko ndeysaan ñu sotti la ndox ba nga tooy xepp waa ji ci bopp bi lay tàmbalee di sotti jëm suuf bu paree mu jël saabu ak njàmpe bomb la côté yëpp waaw ba nga set wicc ñu door laa sang-sangu janaaba boo paree ñu daal lay defaat beneen ñetteelu sang bi mooy sottiwaat ndox ci kawaat ba ci suuf pare nga ñu daal di jël serviette bi commencé laa fomp ba mu ba mu wow ñu indi ñu indi coton yi coton yi saañ nopp yi waaw def ci parfum fatt nopp yi indi coton fatt bakkan yi indi coton ub gémmiñ gi ndeysaan am na lu ma tëb sax balaa ñuy sim bi ñu simmee yére yi ba pare balaa ñuy sang dañ naan kenn jàppal tànk yi mu jàpp ñu ne kenn jàppal oom yi mu jàpp keneen ki des jël loxoom dugal ko ci suuf ci ginnaaw gi ndigg li mel ne ku koy yëkkati bés biir bi ndax li fa nekkoon di waaj a génn pour génn balaa muy génn ca kanamu nit ña ca jàkka ja ndeysaan gis ngeen gis ngeen mbokk yi doomu aadama ñun ñi ñëpp foofu la ñuy mujj ñu bës sa biir bi waa ji di bës biir bi ndax li fa nekkoon di waan waan waaj a génn wala bëgg a génn génn benn yoon allahu akbar bu ñu paree lool di sotteeku rek bañ a génn fekk sang nañ ba pare loolu bañ a taxaw léegi kon il fallait que waa ji ñu wëlbati ko écarter tànk yi jël witteen bu bari saañ ko foofu pour dootul génn ndeysaan kii kan la kii mooy ki doon ngand ngandulu fii di sol bodi di génne dënn waaw fu mu romb ñu naan jaajëf waay kii mooy kii waay yow xool ko tey mooy ngand ngandul moo doon ngand ngandulu mu ngi nii moo doon bonde sol dàllu quatorze kilos tube yi cinquante kilos tube bi di burux burux seen turu deux mètres tourné cap bi côté waaw di génne dënn bi tey mu ngi ni tëdd wallaay ñun dañoo dañoo wax dañu bàyyiwul suñu xel rek waaye bu ñu bàyyee xel ki gënoon for ci karateka yi anamu anamu ki gënoon for ci kën fumaan yi anamu ah yenn saa yi nga seetaan télé ay chaîne ñu bind aqwa rajulin fil alami l'homme le plus puissant dans le monde nga gis waa ji di pousse avion di yëkkati ay remorque di leen xëcc ñi ñëw mu ngi jaay doole bis ñëw mënatul yëngal bëñ mënatul yëngal bëñ kon kay amul woon puissance amul woon doole allahu akbar moo tax doomu aadama bu faatoo rek malaaka bii njëkk a ñëw di wax ak doomu aadama danaan ko ibnu aadam daa ji ne laj mu ne ko ay na quwatu ko ana sa doole mu ne patt noppi mu ne ko maa adda afaka dara gënu laa yambare wala yambar nga woon yambar nga woon maa adda afaka ibnu aadam ay na riixu ko ana sa xet maa gayaraka lu la soppi fi nga deewee léegi rek yaa ngi commencé changer ba ñuy dugg ci morgue bi sax dañuy jël ay ay masque da ngay dem salle de mort kuy dugg dañ lay jox masque ndax xet gi lan mooy xeeñ nit ñi ñooy xeeñ maa gayarak ibnu aadam ay na samuk ana say nopp maa asmaak dara gënu laa tëx daawoo dégg mais tey di nga dégg moo tax waa safara bu ñu duggee safara lan la ñuy wax law kunna nasma aw naaqil ma kunna fi ashaabi sair ñun bu ñu doon dégg di gis kon tey duñ dugg safara lii dañ ko soxla xam ko soxla léppi léegi utiliser ko léegi xoolal bu baax déglul bu baax déglul bu baax bul bàyyi ba dee dugg safara naan cëy laa illa ndekki gars yi li ñu doon wax dëgg laa ñu safaraa ngi nii su boobaa dégg gi du amal importance tey ngay dégg moo tax waa safara lu ñu doon réccu law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashaabi sair doomu aadama ci àdduna dégg lay njëkk a def ak gis alaxira gis ngay njëkk a def moo tax lañ la fa basaruka al yawma hadid tey de moom la ilaha illallah tey bët yi dafa ñaw su su su pepp suuf waddoon sax doomu aadama dina ko gis yowmal xiyaam pepp suuf su waddoon doomu aadama dina ko ne bër ne mi ngi nii mi ngi nii fa basarukal yowma hadid tey da nga gis de allahu akbar kon nañu gis tey balaa ñuy dem alaxira ibnu adam ay na maaluk ana sa alal ana sa alal ana sa alal ay na maaluk alal sénégalais alal da leen a tiital da ngay dégg ku ne bàmmeel bu sori rek wala alal ju bari gars yi maa ngi dem de alal ju bari rek wala bàmmeel bu sori soo déggee nit wax loolu mooy lu muy wax lu mu bëgg a wax mooy danaa dem ba dee rek wala ma am alal gis ngeen sax gaal yi barça wala barsaq Espagne rek wala dee xoolal nit ñi fi leen alal toll te alal jooyu yëpp fi nga koy bàyyi sunu borom subhanahu wa taala wax ci suuratu humazatin xam nga ñu luy suñu problème ay mokkal nañ ko waylun li kulli humazatin lumaza alladi jamaa jamaa maalan wa addada yaa leen xoolal waa ji nga xam ne dafa dajale alal di compter rek deux millions trois millions un milliard dix milliards ah dajale rek mu dem ba alal ju bari yaxsabu anna maalahu yaakaar ne alal ji day tax du dee ci beneen aaya yàlla mu ne kalla inna al insana la yattaxa an raa doomu aadama dafa gaaw a bew dafa gaaw a reew bu gisee ne am na rek reew fuuy yaxsabu anna maalahu axlada yaakaar na ne xus yaakaar na ne alalam daf koy saxal moom la waa ji naan nga dajalay jàll jalla jalaaluhu ñëw jël la ñu yóbbu la jàll la ñëw tas jàll bi nga jaloon jaale la doomu aadama day dajale rek di jàll jalla jalaaluhu ñëw jël ko ñu yóbbu ko jal ko ñëw tas jal bi mu jaloon jaale ko jeex na amul leneen kon nan bàyyi xel sunu bopp sunu borom lim ñuy wax nii moo am de du ay léeb de mi ngi nii di ñëw sunu kanam al aqrabin wal yatama wal masakin yonente bi saa sallam da doon wax yow yàlla yàlla nag ma dundal ma nekk miskin nga rey ma ma nekk miskin boo may dekkil ëllëg nga dekkil ma ma ànd ak miskin yi dañu laaj yonente bi ñan ñoo ëpp aljanna mu ne miskin yi moo tax mu ne yow yàlla yàlla nag ma boole ci miskin yi fii nag koo fi ne yàlla nga nekk miskin dootu bu xëyee suba dootu la nuyu yonente bi moom ndeysaan da doon ñaan yàlla loolu yàlla yàlla nag ma dundal ma nekk miskin nga rey ma ma nekk miskin nga dekkil ma ma ànd ak miskin yi nga dugal ma aljanna ma ànd ak miskin yi moo tax sànq ñu ne leen yonent bi nee na miskin yi ñooy njëkk a dugg aljanna juróomi téeméeri at borom alal yi doog a ñëw moom mooy genn wàllu bis genn wàllu bis ci yàlla mooy juróomi téeméeri at benn bis ci yàlla mooy sunu junni at wabni sabil ak ñi ñu war a jox encore mooy ñi nga xam ne ay étranger lañ ñoo xam ne ay jullit lañ jóge seen dëkk ñëw ci dëkku lislaam yi tumaranke sonn jullit ñi dañ leen a war a jox dimbali leen mooy ibnu sabil gis nga ibnu sabil dañ koy jox sax azak miskin dañ koy jox azak mais al aqrabuun kenn du leen jox azak sa papa ak sa yaay doo leen jox azaka pourquoi dañ cee bokk papa ak yaay kenn du leen jox azak soo doon jox azaka sa papa ak sa yaay nekk ay faxiir doo leen ko jox parce que lu tax ñooñu sa alal ji dañ ci am doole Omar ibnul Xataab dafa doon àtte benn waay ak doomam waa ji daa am alal bu bëri daa di bàyyi ndeyam ak baayam toog fële waa ji dem boole jëkko Umar Umar woow xale bi mu ñëw xam nga góor gi toog mu ne xam naa ko gay xam nga ko waaw salal la sama papa la lan moo dox sa digganteeg moom ba nga am alal joxoo ko mu ne dafa ma tooñ ci ñetti mbir lan ñett la la def mu ne bu njëkk bi mooy utaluma yaay bu baax te lislaam dana ko woon mu tànn tànnul mu ne ñaareel mu ne jàngaluma sama diine alxuraan a ngi nii mokkaluma ci dara ñetteel mu ne utaluma tur bu rafet joxlaan la ma tudde xam ngeen joxlaan mooy mbërëng mbërëng loolu di mbërëng kii ci àll bi mbërëngaan la ko tuddee joxlaan Omar na xale bi jógal dem moo la tooñ bëri na ay papa yu tooñ seen doom de bëri na ay papa yu tooñ seeni doom doom boo tànnalul yaay doom boo jàngalul diine tànn la ko yaay pourquoi soirée yi ngeen daje rek lamp yi naan xir xir yu xonq yooyu bu lay kur kur kur jeu de lumière femme bi rafet ci yow ngeen dugurux mooy yàlla mu ëmb am doom nga takk wala sax mun ngeen bañ a yegg foofu jeu de lumière yi moo ne karaj karaj rek nga tiit jël adresse jël téléphone nga dem sa papa papa wër naa ki ma doon wër gis naa ko wër foo ko doon wër booy wër jabar ju baax yëngu leen ngay dem soraano ngay dem booy wër jabar ju baax ci soirée yi ngay dugg di wut jabar ju baax xam nga ne ku takk foofu jabar dóor nga sa loxo ci ëkk ni yonente bi wax iyaakum wa xadara uddiman qaalu ya rasul allah wa ma xadara uddiman qaala man ba imraatun xasna ala man bati suu aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam moytu naku leen nëtaxu gattaxu sën xam ngeen gattax xam ngeen gattax naajo naajo bu saxee fu ñuy tuur mbalit day naat am fleur ay bu borom tool bi yaakaaree naajo te mu dem alaxira gattax tamit noonu la dugub ji bu saxee fu ñuy tuur mbalit day focc jug rëy verte ay ku yaakaar mbool loolu mooy jigéen ju rafet te amul diine bu la mees yi tiitalee paccal bi jaaxal la dof loola yi mu poosé ci bët yi wala weyi wala yu mu diw ci gémmiñ yi dof loola ba nga dugg ci am nga problème demal di nga tëdd guddi naan vraiment dama échec quoi dama échec quoi da nga échec parce que dañ leen woon tànn leen tànn mbokk yi ci gàttal fu ndaw rek benn espace bu ndaw bu tuuti bu ñuy dugal wax ji mooy tey ci ñun ñii ku demoon daral di jëndi xar nooy def dangay tànn ku demoon marché di jënd yére dégguma tontu de ku demoon marché di jënd daal ku demoon ci parking oto bi di jënd oto ku demoon ci kër yi di jënd villa ah ngay tànn ngay ngay ngay ngay takk jabar looy àndal àdduna ba dem alaxira tànnoo déggu leen lu ma wax de déggu leen ma de tànnoo daal sax da nga koo tànn daal allahu akbar daal moo gën a dee da nga koo tànn daal moo gën a dee ci suuf lay nekk da nga koo tànn ngay tànn yow koy bokk lépp tout tànnoo sadaqa rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi waxoon na ku tànnul dóor nga sa loxo ci ëkk lan mooy dóor sa loxo ci ëkk na kenn ñi na kenn mer léegi dóor miir bi di nga ndogu te kenn du la ko wax wala nga mbëkk miir bi na kenn arrière mbëkk miir bi xam naa boo daanoo ba jóg da nga naan jox la dindal leen ma ndox damay gis ay biddéew ay biddéew laay gis ngeen ni gis ngeen léegi nag imagineel soxna soosu nga jël tànnoo ko foo jëm mu nar laa amal ay doom moo tax lan ngeen gis léegi xool leen doom yi fan lañu tànne yaay yi ci mbedd mi xale yi fan lañ nekk mbedd mi parce que ci mbedd mi nga daje woon ak moom foofu nga tànne woon yaay ji xale bi ci mbedd mi rek lay nekk parce que ci mbedd mi nga tànne woon yaayam bi muy raam lay commencé dem mbedd ma day raam wàcc ci lal bi raam ca mbedd ma lañ koy jël bi bu mënee dox nag day naaw da nga dégg ni wuu booy bi moo mën a naaw ah bañ a naaw nga tànne yaayam ci mbedd mi nga ni doom bi du naaw hey kii téeméeri laaf lay am xale yu góor yi xam nañ li may wax nag booy bi ak day naaw booy kii bul waxateeg moom booy bi day naaw comme ceeli dafa may laaf allahu akbar yàlla moo wax dëgg ku tànnul perte ku bëgg jigéen ju am diine doom yu baax da ngay tànn fasfar bi zaati diin taribat yadak yonti yàlla muhammad ki yàlla yónni woon ki yàlla doon informé nee na jëlal borom diine mu yem ci sa loxo boo ko ne toogal mu toog boo ko ne noppil mu noppi waaw boo tayalee jóg julli fajar sax mu ne la nga ne ah salaatu na mu ne la salaatu nañ de nga ne mu ne la salaatu nañ mbokk salaatu nañ de nga jóg gis nga waaye koo xam ne boo buggee jóg mu ne la nga tëddaat bisa ngi ñëw mu yuuxu ba ñépp ñëw mu ne jël leen yóbbu jàkka ja ku sa soxna tere dem jàkk bisa ngi ñëw day yuuxu ba ñëpp ñëw mu ne jël leen yóbbu jàkk bi lu ngeen taxaw dam leen ni kees gi pare na ci yow ndeysaan te moo la tere woon dem jàkk démb kat tey jii rek mu ne nañ la yóbbu ba pare du ci yem de non ñemewuma fanaan ci néeg bi ñemewuma ñu yóbbu ko ci saal bi wala ñu woo ay nit kaay leen ngeen fanaanoog moom gis nga gis ngeen alalal bi day wàcc dootul tëdd ci lal bi sa armoire sax dootu ko ubbi non yére mi dama ko ragal dama ragal yére mi waaw danaa rek xanaa tey gis ngeen ndeysaan allahu akbar juróomi fan ay semaine ay weer tënj bi jeex mu commencé waat leeral benn waay ñëw bu fu simmi woon ay dàllam ba muy tënj tëdd ci sa kaw lal taal sa ventilateur sa jabar di ko toggal reer bu jékki-jékkee mu ne ko ayda mu ñëw mu ne ko meyow kër gi ko ta wax mu ne sa waa jëkkër gi mu ne mais si jëkkër ji vrai con la mu ne wax nga dëgg de xoolal fenêtre bi fu mu ko def kii la ko waroon def mu ne wallaay wax nga dëgg waxoon naa ko gis ngeen ana nga yow yaa ngi fële bàmmeel ndeysaan yaa ngi fële bàmmeel di régler say compte sa doom yi ñoom it ñu ngi ci leneen sa kër gi keneen keneen moo ci nekk sa lal bi keneen a ci tëdd sa jabar keneen jël na ko même bu fekkoon ne ku jigéen ki la noonu lay utewaat beneen jëkkër bu ku góor ki la noonu lay utee beneen jabar keneen mooy yéegaat ci oto bi keneen keneen keneen mooy def lépp leen jaamu yàlla léegi yow loo yóbbaale alaxira ana alal ji ana oto bi ana ana loo yóbbaale yóbbaale woo dara sa alal mooy li nga lekk mu rees li nga sol mu ràbb amoo leneen alal ji li muy bari bari bari bari li nga lekk rek moom nga moom loo lekkul moom moo ko xam nga ñan ñoo ko moom ñii doon gis ngeen nit bu amee kër yenn saa yi nga gis benn waaye bu am R plus 5 ndax ci ci ci étage yëpp lay fanaan xam leen laaj ci lay étage yëpp lay fanaan ci benn étage yi lay fanaan benn ci benn bi lay fanaan benn cent benn immeuble bi am na sept chambre ci sept chambre yëpp lay fanaan même double lit bi li muy ngànd ngànd ngànd waaye ci double lit bi yëpp lay tëdd benn espace bu ndaw la ci am tuuti tuuti tuuti la ciy tëdd du tëdd fépp même lekk bi ñu la jox doo lekk lépp robinet bi doo naan lépp alal ji doo lekk lépp tuuti nga fi am xamal loolu bul dof tuuti nga fi am jëlal lu tuuti loolu nga jaamu yàlla amoo lépp boo amoon cinq oto cinq quatre quatre cinq yëpp booy dawal cinq yëpp ngay dawalandoo benn ngay yéeg yi ci des gaare benn rek ngay yéeg jeex na noppalul ndànk jaamul yàlla loolu la la yàlla sant jaamul yàlla sa alal mooy li nga joxe ci yoonu yàlla li nga lekk mu rees li nga sol mu ràpp leneen amoo ko am nga ñeenti armoire armoire bu nekk dafa fees ay costume costume yëpp ngay xëy sol benn rek benn benn rek doo solandoo noo sol yëpp benn rek ne leen ragal yàlla mbokk yi buñ ragalee yàlla rek nekk ci jàmm mun ragalul yàlla nag dañuy sonn àdduna sonn àllaaxira na leen ci yàlla musal ixwaan yi sunu borom subhanahu wa taala nee na wa ma tafalu min xayrin lépp lu ngeen mën a def ci lu baax baat bi baat bu jar a dégg la wax naa leen chaque jour said hawa rahimahullah dafay jàngale alquran mu ne bu ngeen di jàng alquran na ngeen bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee mbokk yi sunu aaya tey bii fi muy jeexee mooy wa ma tafalu min xayrin fa inna allaha bihi alim lépp lu ngeen mën a def ci lu baax man yàlla xam naa ko waaw kon soo déggee loolu yàlla nee na lépp loo def ci lu baax xam naa ko kon loo war a def ah lan la ñu war a def kon wa ma tafalu min xayrin ñu ne ah mu ne fa inna allaha bihi alim loolu ngeen def lu baax yàlla nee na man xam naa ko man yàlla xam naa ko tey bu la président recevoir oon nga toog ñëpp toog mu ne la diw nga ne ah mu ne lépp loo def ci Sénégal ci lu baax xam naa ko nit ñi li ñuy def nit ñi dañuy tàcc sa papa fu mu toog ci salle bi mu ne wala sax danaan la ma de nañ dem maay sa maay sa baay damay ànd ak yow xoolal ku toll na yàlla mu ne lépp loo def ci lu baax xam naa ko kon est-ce que war ngaa tayal ci lu baax war nga tayal ci lu baax déedéet te yàlla lu xoolal lu baax la wax kenn ku nekk fi nga toog ci ñun firil lu baax ci sa bopp lu baax noo ko gisee lan mooy lu baax lan mooy lu baax yàlla nee na loolu nu mu toll la wax nu mu mënta toll même bu dee comme pepp suuf yàlla nee na xam naa ko bu dee dafa toll ne conteneur xam naa ko bu dee dafa toll ne géej xam naa ko bu dee dafa toll ne asamaan xam naa ko bu dee dafa toll ne adduna xam naa ko même bu gënee tuuti loolu tamit xam naa ko loo def ci lu baax rek yàlla nee na xam naa ko kon lu baax li waruñu ko xeeb dafa war a bëri mbokk yi aaye bii ñu doon jàng danañ ci jëlee ñetti mbir ci ay njëriñ bu njëkk mooy suaalu man laa yaalam xata yaalam bu njëkk li ñuy jëlee ci aaya bi mooy ku xamul da ngaa war a laaj loolu lan moo ñu ko wax mooy yasalunaka maza yunfiqun ku xamul da ngaa war a laajte kenn amul droit noppi naan xaw ma xaw ma non man xaw ma ah xaw ma ah mooy xaw ma loolu loolu daf maa dal rek tey daf ñoo dal tey ñoo ngi ci oto dugg autoroute péage bi benn waaye ñëw di ñu jaay ticket bu xonq chauffeur bi xool fële mu dem ba ci yàgg ñeneen ñëw ne ko indil waa ji ne ko da nga jëndagul mu ne lan laay jënd waa ji ne ko mais gars yi mu ne non dama xamul waaye ne boo xamul nga laaj gis nga ku xamul dafa war laaj ku xamul ci àddina bi sax defal defal dara nga dem police commissaire doxa yow nga ne ko non man xaw moo na bu ñu la pesee ci diine l'islam tamit amoo droit di def te laajte woo mais ci islam rek ngay gis gars yi di def lu leen neex te duñ laaj soo waxee ñu ne ah bon man nii laa ko fekkee gars yi di ko defee inna wajadna abaana ala umma comme li ma femme bi waxoon waaw man su may julli ma yëngal sama baaraam dama yëngal rek ma ne ko looy wax mu ne man kay xaw ma ko dama gis nit ñi di yëngal ma yëngal ah dama yëngal rek ah dañuy yëngal est-ce que affaire bi yëngal kese la fam lu ñuy wax mais nit ñi seen yoon nekk ci loolu yal na yàlla jubal kon li ñuy njëkk a jël ci. aaya bi mooy man laa yaalam suaalu man laa yaalam xata yaalam wa hada tariqu lilmi lii mooy yoonu xam-xam walida qaalu assuaalu nisfu lilmi loolu moo tax ñu ne laajte mooy genn wàllu xam-xam foo gis kuy laajte day am xam-xam waaw man de bëggoon naa def nangam lu ci islaam wax ñu ne ko nangam moo ci islaam bëggoon naa def nangam lu ci islaam wax ñu ne ko nangam la ci islaam wax waaye sénégalais day def li mu def ba pare man damaa gisoon benn xale bu jigéen ma bëgg ko ñu ne waaw ma dem ñaani papaam ak yaayam bañ ma koo may ñu ne waaw mu ne léegi nag ñun yàgg nañ ba nga xam ne jaar nañ fële def nañ lele ba mu jugi léegi nag benn bis rek seytaane mën na ma léegi nag kii nañ lan mu ne kii nañ luy lan ngeen def bon ci ci noo ko mën a dégg mooy am nañ doom léegi nag lu ci islam wax c'est trop tard lu ci islam wax bi nga ko bëggee nga waroon laaj lu lislaam wax bi nga demee nga ñaan ñu bañ la nga waroon wax lu lislaam wax ci loolu def nga li ngay def léegi ba pare nga ne lislaam lu mu wax ñun chaque jour noonu la ñuy def dañu ne suñ tooxi doona ba pare ñu ne waa léegi nag lu lislaam wax amoo droit def dara te xamoo lu ci lislaam wax yàlla nee na yonent bi saa sallam nee na xam-xam mooy genn wàllu laaj mooy genn wàllu xam-xam ñaareel mooy afdaliyatul infaq alal mazkurin ngëneel yi nekk ci jox ñi yàlla wax yàlla bu la tànnalee ay nit ne la jox leen ñooñu boo leen joxee da ngay am tiyaaba mbokk yi président bi ñu ko falee dafa fal ay ministre jox leen liggéey ne leen lii laa bëgg ngeen def ministre bu tey président ba bu ñëwee mu fekk waa ji def na li mu war a def lu muy def day mer wala day kontaan directeur société bi nekk ci société bi di fayaate gars yi di liggéey bu weer dee mu leen di fay su weer dee mu fay ñëpp ñi mu fay nu ñuy def ah bu leen fayul nag bu leen fayee dañuy kontaan bu leen fayul dañuy mer di kaas bu leen fayee ñu kontaan yàlla bu la joxee moom it mu tëral la ay nit ne ñii laa bëgg nga jox boo joxee lan la yàlla di def di kontaan day xam ne yow jaam nga dégg nga ndigalam ndax joxoñ na la ci alal ji ne la diw ak diw ak diw diw ngay jox nga jox ñooñu da ngay am kontaante yàlla yàlla day kontaan ci yow kon ñii la yàlla joxoñ ne nañ leen jox loolu dafa am afdaliya ngëneel def cee nekk fil aaya in kaana al munfiq ganiyan bu fekkee kii joxe dafa am alal wa hum fuqara ñi muy jox nekk ñu ñàkk muhtaajuna ñu ko aajo daf leen war a jox gis ngeen ki joxe bu amee alal ñi muy jox ñàkk aajo woo ko daf leen war a jox dañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ñetteel ci lu ñuy jëlee ci aaya yi mooy at targhib fi fi'lil xayri yàlla daf ñuy soññ di ñu xemmem loo pour ñuy def lu baax lu baax nit ñi dañ ko war di njëkkante yenn saa yi nga gis ku ne ma may leen ma ndox nga gis ñëpp toog mu ne yéen la même da nga gis sax yenn saa yi mu nekk ci papa ci kër gi papa may leen ma ndox waaw may leen ma ndox kenn du bougé lu dul mu ne waaw xanaa ñu ne ah yow ko da ngaa waxul kenn nit ñi wax kenn wax nañ may ma lu baax la te seen baay la wala mag la wala kilifa la jóg leen ngeen njëkkante mais non dañuy toog di xaar tur yi yenn saa yi sax mu nekk ci jabarian nga ni tàngaleen la ndox ma sangu ku nekk toog fu mu toog te yàlla ne fastabiqul xayraat yonent yàlla Moussa yàlla dafa ne ko boo xëyee suba nga ànd ak waa banu Israil ngeen dem tuuru Sina Moussa xëy ne nañ dem gaa yi yéex mu dem yoonam mu yéeg si yàlla ne ko Moussa mu ne wa ajjaltu ilayka rabbi ana gaa yi mu ne yàlla damaa yàkkamti mën ma ñëw pour nga kontaan ci man ma yàkkamti gis ngeen sooy def lu baax da ngay dañ ci gaaw da ngay dégg sax ñu ne am na benn góor ndeysaan ci asalem Paris da daan nodd julli jàkk bu noddee ba pare mu ne lu baax du doy lu baax du doy ñoo leen ngeen julli bala ñu leen a jullee waajal leen waxtu bi bala ñu leen a waajal wax na dëgg de waaj leen bala ñu leen a waajal ñoo leen ngeen waajal waxtu bi bala ñu leen di dugal ci morgue bi di leen préparer di yóbbu ñoo leen julli bala ñu leen teg ci kanamu jàkk ji di leen jullee wax na dëgg lu baax du doy lu baax mbokk yi ndax xaalis dina doy ci àdduna kuy tontu kuy tontu ndax xaalis dina doy du doy de ah naka noonu alaaxira lu baax du doy américains yi bu ñu nee what time xaw ma waaw mu nga kon jullit dafa war a is tiyaaba sa minute yëpp ay tiyaaba la war a doon ixwatal iman at targhib dañuy xemmeem loo fi fi'lil xayraat ci def lu baax wal waadu min allahi taala bil jaza yàlla mi ne def leen lu baax njëkkante leen ko yàlla moomu moo ñu dig ne bu ngeen defee lu baax ma fay leen wa ma tafalu min xayrin yaalamuhu llah aaya bi mu ne fa inna allaha bihi alim lu ngeen def ci lu baax rek xam naa ko kon yàlla moomu moo ne dinaa leen fay wal waadu min allahi taala yàlla moom moo digge ne moom mooy fay bil jazail awfa alayhi yàlla ne képp ku def lu baax dinaa la fay képp ku def la wax ku def lan nga def lu baax yàlla def la koy fay même boo nekkee yéeféer soo defee lu baax yàlla da la koy fay yàlla du la tooñ lu baax yu baax yi ngay def nii ci àdduna da ngay gis yéeféer yi lu tax ñu am alal parce que dañuy jël seen alal te ñëw fekk fi dëkk bi amuñu marché ñu tabax marché xaalis bi di gën a bëri rek ñëw fekk fi gars yi lan ngeen manqué ñu ne hôpital tabax li ngeen manqué garab moo tax gis nga seen alal day dem parce que yàlla da leen koy fay fii ci àdduna yàlla du leen tooñ moo tax gis nga nuñ ñu rawee mu soo romb fenn benn marché nga ne marché bi ko tabax ñu ne la benn ay yéeféer rek teen yi teen yi ah hôpitaux yi yéeféeri rek ana jullit yi seen alal yépp ñu ngi ko denc ci banque yi Ablaye Wade bala muy wàcc dajale na fi jullit yi ne day jëli riba bi jullit yi am ci banque Europe yeeg Amérique gis ngeen banque yooyu bu ñu ko indi woon waxuma Sénégal mais Afrique lay dundal Afrique Afrique yëpp dañuy nekk ay millionnaire ndax ni mu bëri alalu jullit yëpp a ngi ci banque yi ñu denc da ngay gis ñu ne jullit yi soxla nañ nangam ñu ne non ay terroriste lañ kenn du leen jox alal mbir yaa ngi noonu kon mbokk yi fii la ñuy yem incha allah ba suba ak jàmm ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuumte yi nangul ñu lu jubli in aradtu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu